plateau bi ñu dem ci actu commenté bi euh, yéenekaay yu bëri xëy nañ ci dañuy def taxaw seet ci le quotidien euh, le PDS à l'heure du choix euh, ku ne xam na ne Chérif ñoom amuñu candidat waaye itam tànn gi ñu ngi koy xaar ci ñoom ñu tànn ana kan la ñuy àndal ci jongante palub njiitu réew bi nu dëkkmal fii ak dibeer incha allah. waaw soxna Fatou PDS amoon candidat wante day parti boo xamante ni du parti bu ndaw. dayoo gi mu am nag moo tax ñëpp teg ko gët mën nañoo jàpp ni sax entre guillemets mais am ni candidat ndax c'est un parti boo xamante ni normalement euh, d'une manière ou d'une autre comme ni ko seen mandataire waxee màgget si war nañoo mën a peser ci balance bi ci jour élection bi am vingt quatre ndax jaar-jaar bi moom ñu ngi ci 2024 tey euh, atum ren mi PDS am na juróom fukki at ndax Ablaye Wade mi ngi ko sosoon fii Sénégal mu nekk déjà parti d'opposition am lu bëri loo xamante ni contribué nañ ko ci démocratie Sénégal ba mu nekk ci kuje gi ba nga xamante ne tey jaar nañ ci pouvoir bi xam naa dinañ ñëwaat ci mars muy beneen date boo xam ne mënuñ ko wax te démocratique sénégalais mënoo ko ci ñàkk tudd boo demee assemblée nationale moom mooy le premier parti d'opposition maanaam si quand parle euh, de l'opposition parlementaire mhm. députés minimum ils ont vingt cinq parlementaires. Mm. te wane nañ ko quand même parce que guleet kon ñu dund ci Sénégal loo xamante ni ah, ah, c'est à cause du PDS. maanaam mm. dem boo war a commencer campagne électorale. Mm. ñu toxal campagne bi ndax ñoom Karim Wade mi seen candidat ah, ni conseil constitutionnel daal di invalider candidature bi. donc mm. boo xoolee euh, mm. am nañ ko donc parti boobu du ndaw kun faral mën nga jàpp ni quand li ñu wax naan euh, arbitre vraiment match bu fekkente ni décidé nan ñu bañ a def lan defoon en parce que en deux doonu boycotté woon Karim Wade nekk fi woon ma nga woon fële ca Doha. Mm. mais jafe-jafe comme ni nga xamante ne rek problème éligible éligibilité amoon ba finalement jàllut mais à l'époque le PDS Ablaye Wade daf ne militants yi décidé woon ku nekk nga xool foog neex nga faat mais jëlun woon vraiment benn consigne boo xamante ni laajoon nañ ko tey nag moo am na benn euh, X Twitter euh, anciennement Twitter boo xamante ni Karim démb bi bind na ko mhm. euh, c'est un peu énigmatique quand même je ginnaaw bi mu gërëmee militants yeeg responsables yeeg alliés yi mi ngi naan leur demande quand de rester mobilisés mhm. pour xam li nga xamante mooy suite combat bi mhm. qu'est-ce qu'il entend nekk di déglu ki nga xamante mooy secrétaire général di Ablaye Wade mi nga xamante ni c'est le fondateur du parti mu nekk fii mhm. euh, ci Sénégal moom moo tax nag xëy na on a juste entendu que Amadou Ba taalal na leen loxo déggun ci ñeneen ñi nga xamante tamit ñi ngi xëccoo géew bi jege si leen alors que jeeg la boo xamante ni ku nekk boo sañoon tamit fat ko sa comme ni ma la waxee ndax jaar mhm. pense que candidat yi xëy na ñàkk a xam wala ñoo dañuy xaar PDS ñëw mais PDS c'est pas boo xamante ni moom mooy ñëw ci yow parce que li ma la wax ni moom nga am ci ab ab mbooloo je pense que jar na. dagab campagne dem dem jëm leen a dragué ji parce que bu fekkente ni ñoom participer nañ ci li nga xamante ni moom mooy campagne bi ci loolu mën naa mën mën na euh, balance bi mën naa taxu. e je pense que xëy na fa d'ici ñuy ñuy avancer soxna Fatou di nga gis am na ñoo xam dem jege leen. am nañ jafe-jafe nag ak candidat bi nga xamante ni mooy Amadou Ba. parce que comme ni ñu ko waxee ci mbiram soupçon de corruption yoo xamante ni moom moo taxoon coow li gën a bari. loolu xëy na la situation. ñoom ak waa Jomaay aussi depuis seen intercoalition coalition bi kam y a eu des difficultés ak ay initiatives yoo xamante ni am na fële ci assemblée nationale mais mm. on est politique des ay réeroo mënta ñàkk am mais bu demee rek ci li nga xamante ni mooy réalisme mm-hmm. on espère que candidat yi leen gën a jege ngir ñu xool euh, fan lay mujj mm-hmm. mi ngi noonu en tout cas Malick li ci des bareetul parce que dégg nañu euh, seen responsable mu ne euh, fii ak suba di àllarba gën gaa sori dinañu wax ñoom fan lañ féete ci mbir mi waaw ñoom PDS euh, ni ko Chérif waxee rek dafa nekk euh, une puissante machine politique bu nga xam ne depuis la création du parti en 1974 ci élection 78 yi ba léegi amul benn élection presque présidentielle bu nga xam ne euh, wala élection bu majeure bu nga xam ne daanaka PDS participer wu ci ren ji nag ils se sont battus wax dëgg yàlla xeex nañu par la voie légale parce que lépp lu nga xam ni yoon may na leen ko def nañu ko ba épuiser toutes les procédures euh, légales ba daanu euh, ci li nga xam ni mooy bokkaatu Karim ci ci ci ci élection yi def nañu seen kem kartan lépp lu leen yoon may def nañu ko pour Karim bokkaat bi nga xamee ni nag décision finale bi génn na ci la ñoom abdiqué xam ni nag ay la yéwén élection yi ñoom mm-hmm. arbitre lañ ciy doon c'est vraiment dommage pour un grand parti comme le PDS que pour une élection présidentielle comme ça ñu war a nekk arbitre alors ko ñoom ñu waroon nekk ci biir xëccoo bi euh, je pense que ça les responsables du PDS en tireront toutes les conséquences parce que aussi euh, li nga xam ne moom la ñu remarqué moo di nii ki ñu jàpp ni tey moom mooy seen leader muy le prince de Doha Karim wax dëgg yàlla combat yi nga xam ni baayam mëne na ko ci réew mi ba créer une alternance moom waroon naa mën a ñëw ci biir réew mi jiite parti bi am les coups de franche lu ko ci fekk fekk ko ci mais toog ca Doha di tirer les ficelles je pense que un grand parti comme le euh, PDS a besoin d'un leader qui est là en permanence nga xam ni dafay mën di jiite parti bi. beneen bi nga xam ni moom moo ci topp euh, moo di ni actuellement nii le PDS a plusieurs choix ndax tey mën nañu toog bank seen loxo. ni ginnaaw bokkuñu ci. ah ñi ngi jox mot d'ordre suñu ay militants ñu toog banque seeni loxo buñ ci bokk beneen bi ci des am na ñu leen di xëcc parce qu'il y a beaucoup de tractations ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul mm-hmm. pour ku nekk di xëcc pedes pour mu jàppale la parce que cinq cent mille électeurs <laughs> premier groupe au niveau euh, de l'Assemblée nationale ci wàllu opposition bi mm-hmm. loolu partie bu nga xam ni dafa réussir un parfait maillage du territoire amul fooy dem ci Sénégal te amu fa euh, euh, représentant wu PDS donc parti la bu nga xamante ni tey am ko ak yow moo gën nga am ko contre yow moo tax kenn ku nekk yaa ngi def sa kem kartan pour mu ànd ak yow les gens du pouvoir ñi ngi def tout pour xëcc leen ñi nga xam ni tey xëy na sa sont des libéraux de souche ñi ngi naan ginnaaw PDS bokkul ñun héritage Euh, parti libéral bi ñun ñoo ko yor kon ñun ñoo gën a yayoo ñu jàppale ñu. ñeneen ñi ñu ngi naan ginnaaw PDS ci opposition la nekk. Mhm. l'idéal mooy mu ñëw jàppale opposition bi. Mhm. mais pour le moment. voilà démb ci quartier général mi ngi naan moom c'est sa famille naturelle. ah ah ah démb démb tuuti laa ci seetaan sax mm. mais c'est normal que. Mm. ku nekk di euh, xëccee ñi nga xam ne tey dañu fexe ci flanc wu PDS. Mm-hmm. di wax ne kat ñun nous sommes les dignes héritiers. Mm. du libéralisme. nous sommes des fils de Wade. kon tey bu ñu soxlaa waa parti bi dañu war a ñëw jàppale ñu. Mm-hmm. donc ça veut dire que tey bu fekkoon ni euh, euh, tey PDS maanaam jeeg la jeeg la bu nga xamante ni bari na ay prétendants. kenn ku nekk yaa ngi ñëw maintenant Karim a rendu a a refilé la patate à son père parce que tey euh, le maître du jeu c'est maître Abdoulaye Wade moom moom mooy décidé mm-hmm. en tout état de cause euh, ku ci PDS munti jàppale rek mm-hmm. di nga xam ne am nga allié bu wóor mm-hmm. mais en attendant PDS di décider am na ñu nga xamante ni xaaruñu sax la décision euh, du parti am na ñu commencé dem di rallier. Mhm. Euh, ñii di dem ci Diomaye ñii di dem ci euh, Amadou Ba. Mhm. ñii ñii di dem ci Idrissa Seck. mais la discipline de parti. Mhm. voudrait que ñoom ñu toog xaar le mot d'ordre du grand pape. comme ça ñoom après ñu xam fu ñuy teg seen tànk. très exactement soxna Faty donc euh, PDS bon certes euh, xaw na ratt li nga xamante ne bokkoon na ci mébétam moom mm-hmm. mooy bokk ci euh, élection palum njiitu réew mi mm-hmm. dafa mel ni li xewoon ci élection législative yi lu mel noonu la ñuy dund bi ñu noppee euh, pour war a constituer euh, groupe libé groupe euh, parlementaire yi au niveau de l'Assemblée gisoon nañ position bi le candidat Pape Djibril Fall amoon moment boobu gisoon nañ Pape Diop également. mu doon ay ay euh, ñoo xamante ne dañu doon peser ci ëllëgu euh, li nga xamante ne mooy assemblée bi lu mel noonu dafa mel ni moom la ñuy dund. Mm. et je pense que euh, parti démocratique sénégalais li ñu am jamono ji. Mm. négocier xool foo xamante ne gis nañ ne war nañ ci mën a am dara mooy avantage yi parce que nag. Mm. quoi que l'on puisse PDS dafa toll ci defaraat li nga xamante ne mooy basam defaraat. Euh, ni ñu tabaxe parti bi parce que nag am na ay rëq-rëq bu ñu demee nag ba toll ci position bi je pense que ça serait di gâchis ñu banque seen loxo comme li Malick wax bañ a négocier xool foo xamante ne njort nañ ne war nañ mën a am dara parce que c'est des post à, à, à négocier quoi que l'on puisse dire plus de 500 000 électeurs boolu mm. foo ko mën a dugal euh, candidat euh, benn candidat à l'élection defe naa dina la bàyyi xel donc gis naa ne lu am solo la mm. te gis nañ taxawaay bi nga xamante ne le parti au pouvoir am na ko. Mhm. bi PDS commencé procédure yi c'est vrai que lim ci bëggoon amu ko. Mhm. mais à chaque fois da daan gis le parti au pouvoir dafa mel ni da ko doon jàppale. Mhm. donc loolu tamit est-ce que du doon tey loo xamante ne genre cas de conscience lay. peut-être les politistes et autres analystes politiques vont nous édifier. mais gis naa ne li ci gën am solo mooy parti euh, la famille libérale également ñu ngi xëcc. le dernier mot reste euh, vraiment entre euh, les mains du président Abdoulaye Wade te xam naa ne fu mu mm-hmm. décider rek. Mm-hmm. du ñàkk euh, ñu ëpp ci militants yi. Mm. dinañ ci dem parce que li Malick waxee léegi am na mm. déjà ñoo xam ne def nañ seen choix. mais la plus grande masse defe naa dinañ xaar euh, mot d'ordre. voilà euh, Cheikh nan nga gisee. Mm. depuis semaine bi euh, faat yi gis nañ ne même moom Karim Wade mi ngi waxtaan ak yenn ci ay candidats de source sûre am na ci ñoo xamante ni ils sont en train de négocier à ce que ñoom ñu jàppale leen ci li nga xam ne moom moo di élection présidentielle yi mais il faut noter ñoom tànneef bu ñu mënti def déjà constaté nañ que am na benn division boo xamante ni am na. Euh, ci biir euh, PDS ndax am na ci ñoom ci ñoo xamante nii daanaka féewaloon nañu ndax mm. ki nga xam ne peut-être daañ PDS na ko jàppale peut-être ñoom mën nañ am désaccord ak euh, boobu les candidats mais lu mu ci mënti doon ku nekk ci candidats yi donc li la gënal moom mooy que PDS ñëw jàppale la mm-hmm. ndax seen ak dayoo ak itam taxawaay bi nga xam ne mm, mm-hmm. am nañ ko ci wàllu politique euh, fii ci réew bu Sénégal peut-être nag ñu ngi gis saa su ne ñi nga xam ne euh, dañu leen recalé ci élection yi euh, donc à chaque fois mouvance présidentielle mm-hmm. la ñuy gis ne que ne foofu la ñuy dem jàppale même tey jii nii incha allah peut-être na am ñenn ci ñoo xamante nii daañu dem jàppale ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba fu ci nekk yaa ngi xool li nga xam ne moom moo di sa ay intérêt ak itam sa tànneef mais lu mu ci mënti doon d'ici mercredi. Mm-hmm. yàggatul maître Abdoulaye Wade donc dina wax. ñu xam ñoom kan la ñuy àndal ci élection présidentielle yi. c'est ça merci beaucoup euh, euh, sama gars yi ci euh, actu commenté bi parti démocratique sénégalais boobu la ñuy desandi jàll ci suñu rubrique bi di un jour au Sénégal un jour dans le monde.